مصطفى فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ونبي لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 te ngay daan waaw mbër ca biir a biir lay bëree euh, sëñ Maxtaar noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent sant xadim rasul di santaat bu baax ci jataay bii nga fekk di liggéey liggéey bu rëy bii nga xamante ni dañ kàpp réew mi ci euh, ni nga ko waxee sànq ci ngay liggéey jataay bi nag ñu ngi tey ci jàmmalaay ci julli géej bi nga xamante ni mooy ñaar rakka yi di la 21 waaye nekk ci kër koo xamante ni di suñu wëlëre di suñu xarit di kenn si ñun di jàmbaar lool ci yoon wi di liggéeykatu Xaadimu Rasuul yaakaar naa bi soxee bis bi ba suñu joon yàlla tey yaakaar naa ne bis yi mosuñu koo wuute waaye at mu jotit ñu ngi ciy ànd ak sëñ Mouhamadou Fallil Fall ibnu Serigne Assane li nga xamante ne kenn ku ne xam na diggante sëñ Ahmadou Mati Baal ak sëñ Fallu muy jàmbaari sëñ Tuubaa waaye nekkoon ci peggu sëñ Fallu euh, doomam ju tedd ji nga xamante ni moom la ñu yàlla boole la euh, Cheikh Mamadou Fadal booy juróom jël ko teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Fadal mu yar ko def ci moom li mu war a def ci moom lépp ba mu mat mu dellu si ko nag ci keppaaru woyu juróom waaye bi mu ñëwee nag mu taxaw woyu juróom liggéey bi nga xamante ne moom la suñu fàllu santoon liggéey boobu nag mooy li nga xamante ni mooy màggalu Touba màggalu Touba googee nag ndigal la loo xamante ni sëñ Fallu moo joxoon sëñ Asan ndigal doon ko soññ ci màggal gi di ko xamal ko ne ko bisub sëñ Touba bii daal jox naa la ci ndigal nga fi indi ay ndab ndab yooyee nag yu njëkk yi da ko jox waa ba sàq yu njëkk yi da nga ko jox waa ba sàq wax ko lam ko ca wax ak lam ko ci dig ak lépp dem ko egg ak moom ba xamal ko ne ko képp ku la jox ndax ku ne yow ma xiyaamee dinaa ko nuyu nga jox ko la joxoon bu ko defee loolu ñu wan ni digganteem ak si asan boo xamante ne dara dox fa woon ñu gàttal ko ndax buñ ko saraay day gudd waaye liggéey boobu nag du bi sëñ sëñ jógee 1987 yàlla dogal ànd kooku way juróom yii bi muy dund waaye bi fi jógee 1987 liggéey bu tegu ci loxo mu doon xaj bu kër gi waaye kenn ko ne gisit ni muy doxee moom liggéey bu tàmbalee ci gàttal ci ñaar fukki bool ak juróom-ñett waaye tey jii mu dem ba ci ay junniy junniy bool loolu borom pas-pas moo ko mën pas-pas boobee nag moom lay doxee moom lay waxee moom lay jëfe sëriñ bi képp koo xamante ne xam nga ko xam nga ne amul benn yitte yitteem yëpp mooy liggéeyal suñ tubaa noonu ni la sëñ Fallu jële Kazu Rajab bi jox ko suñu asan xamal ko ne ko dee ko dafa kees wét nañ ci maa yow waaye bu sëñ ki ñëw moo xam te ñëpp nañ ci fekk waaye day yow maa ngi lay digal ne bisuma bu ñëwatee bu la fekkee nga sóobu bu jóg lu ci war naa ko def. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni jox ko bisu maam Cheikh xaal bi mu koy defee Pikine ci ginnaaw raay. Mhm. kon sëriñ bi digganteem ak sëriñ Fallou dafa yaatu woon. Mhm. waaye nag li am solo mooy bàyyi ku mat ak mat li mu doon. ndax nit dañ la bàyyee dara te tegoo ko fi mu ko war teg wala wala liñ la bàyyee xamoo ko nga sàggan mu wërëcc la waaye moom mi xam na li ñu ko bàyyee xam na li tax ñu bàyyee ko ko jëf ko wax na ko dox na ko. Mhm. damay wax ni am na ci jamonoy Serigne Saliou Serigne bi ci boppam am na ku moo ci njaboot bi dem ci moom njaboot gi ñëw ci moom xamal ko ni ndab day la ñuy soxla ci màggal gi. Mm-hmm. waaye dañoo bëggoon nga xaymaal yow sëriñ bi ñaata ndab mooy doy. ay keroog bi Serigne bi waxee ak moom ba pare. Mm-hmm. njabootam googee dafa ne bu ñu amoon téeméer ndab di baax na keroog bi Serigne Fallou ñëw ñetti téeméer ndab la indi ak foo ñetti jëysul. kon mu mel ni la mu la la ko la ko doomam jooju waxoon ak li Sëñ lu indi daa mel ni euh, faw xana la nga xamante ni moom la bëggoon kon loolu mooy liggéey bool yii liggéey bi nag sëñ bi da koo yaatu bàyyiwul kenn jullit yi yëpp la woo ni mu koy defee mooy léeg mu wecc ko ay xasida jël ay xasida defar ko kuy toll ni ak xan ko fi ne am na isnul abraar am na yenn xasida yoo xamante ni sëriñ bi da ko wecciku di ko defar doo mbokk taalibe yi ngir yombal leen seen liggéey mi ngir Sëñ Fallu loolee mu ca gàlloon ne ku ko jox ndab ku ne bu yow ma xeamee dinaa ko du jox la nga jox ko la joxoon nga xam ni donte ñaar dërëm la boo ko yëkkatee jox sëriñ bi dana ko yëkkati defal la ko ci biir ndab yooyee toog nañu dund ak moom loo xamante ni yàlla jox ko loo xamante ni ñu nekk ginnaaw ray mu dajale ay millions yoo xamante ni leer ma ne liggéey bi rek a tax mu toog bu guddi keroog yàlla xam na ni man mi maanaam fàggu ji la ñu reere boo ko ne sëriñ bi de tee ngaa fàggu ci li ñu ne dana ma liggéey lii de jomb naa ko jël di ko def fenn fu ñu ndax ay goro moo ko jox ay taalibe kon dama leen koy dugal fa nga xamante ne ñoo ko moom kon loolu mooy ngor loolu mooy ak taalibe loolu mooy ak mbaax benn bi ci topp mooy Serigne Saliou gërëm na ko Serigne Abdoulaat gërëm na ko Cheikh Sidil Mokhtar gërëm na ko Alaaji Baar gërëm na ko te ngërëm yooyu yëpp am na ci yoo xam ne fekke nañu jataay ya biñ ciy mujjee wax rek Alaaji Baar keroog buñ ko mujjee jox ndab yii moom ndax biñ ko mujjee jox keroog biñ ko koy jox 3 heures du matin lañ ko jox jëm 4 heures. Mhm. waaye keroog sëriñ bi day wàcce di wàcce di wàcce di ba ci yàgg Alaaji Baara jël kaalaam def ni ne ko man day Touba gi yàgg naa fi waaye jëf ju toll nii maa ngi koy doog a gis. est-ce que. daanaka ko bu subaane dinaa dinaa sédd Cheikh Sidou Muxtaar sëriñ bi ne ko ñooñu seeb seenub cëre nga fa bu subaa sëñ Muxtaar ak dongo yi sëñ Ablaye Bamba bi ak sëñ Blaat Fall bi di rakkam mhm. ñu ànd ak moom ak sëñ amit ndaw mi ak sëñ Fallu mi doon jàng ak mbokki tali bi fi ne xamal ne bu bu ñu xëyee de ñoom danañuy jël yóbbu lim yooyee ca ña ko moom muy Cheikh Sidi baa dafa jël ko ci dënnam daal di wax ne ah mhm. jël bi teg ko loxo ko xam nga daamoor lu ci yëpp hmm. alaaji baa xam nga daamoor lu ci yëpp ñun ñëpp ñëw rek sëñ alaaji baa da ko gileem daal la ko jox naa la ñaari gileem addi si jox ngeen màggale keroog ñu dem ca ca ca ca gétt ga ñun ñi ñoo àndoog sëñ bi jëli gileem yi beneen bi topp mooy seex si Sidi Moukhtar jaar na suñu loxo ay teraanga yu dul jeex teraanga yu dul jeex saa bu ñu ko joxee liggéey bi te boobu mi ngi doon xalif suñu baara doon gum xalif suñu Tuubaa ñu jox ko lu wat ñaar fukki at nangam yu teg ñoo koy yóbbu ñun ñii waaye saa bu ñu ko ko joxee mu yëkkati teraanga jox ñu leen boo demee joxuñu suñu fam bi mu nekkee suñu Tuubaa yi ci lay doo ko gis jëmmam moom kon loolu moo lay wax ne kii def moom li mu def yàllaa tax keroog bi mu toogee sëriñ bi ñu ne ko kii moo naan di jox boole sëriñ bi da ko ne bëggoon naa laa gis waaw alaaji baar da ko ne gis la moo gis maanaam gis la maanaam maanaam moo dax gis bool yi am na ñeneen ñoo xam ne ay kilifa lañu dem nañ ci ñoom ba sunu joon yaa tey suñu jëmm yi la ñuy gis sëñ Muntaxa mii mhm. noonu la ma soññee ci moom sëñ Moussa Bassirou noonu la ma soññee ci moom ne ma sëñ Fall rek laa bëgg a teg bët amoon ci yéene yàlla kon loolu mooy liggéey bi nga xam liggéey bool bi bi nag mi ngi Ndakaaru fi toll nii mhm. mi ngi nekk Yoof ci côté hôtel Via Via gannaaw bu jógee fii tey ci bis bi mhm. insha allahu fi la fa séedam mboolem ko ko soxla ku ne boo jëlee numéro téléphone waa nga ko mën nga joxe numéro téléphone bi moom boo ko woowee da nga ko jot am na ay jëriñ yoo xam ne samp na leen ko ko woo it dana la jël mhm. jox la téléphone jëriñ yooyu mhm. waaye sëriñ bi téléphone mhm. mooy 77 647 633 47 45 loolu mooy téléphone sëriñ waaw 633 loolu mooy téléphone sëriñ bi ko ko woo it am na jëriñ yu mu samp ci ay barab ku mel ne suñu xaarim seen ak ñeneen ak ñeneen yi xam ñu ngi ay barab yu fasantikoo yoo xam ni Touba noonu maanaam hmm. euh, Ndar noonu euh, Mbuur noonu fenn fu ne sëñ bi am na fa ay jëriñ yoo xam ne képp ku ko woote rek ci wet yooyu dana la boole jëriñ jooja loo ci jëf nga jëf ko ngi jëmmi suñu Tuubaa kon noo ngi waajal màggal gi di ko ñaan yàlla fan la gudd ak wér amiin barke Cheikhul Khadim amiin Maxtaar sant nañ la gërëm nañ la di saare sunu doom yi fi nekk Alaaji Sow di jànkatu xasida hmm. moom di jàmbaar lool hmm. di liggéeykatu Xaadim Rasuul moom la ñu ànd ak mbooloo mi moo ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nag di santaat suñu Baabu maxtaar bi santaat suñu baaba Mbengue ndax lii mu def kat lu rëy la te ñaar fukki at ak nangam du caaxaan mhm. ay baaba murid saadix la mhm. baaba ku bëgg sëñ Tuubaa la baaba kuy liggéey sëñ Tuubaa la mhm. di sant doom ji di Sëriñ Saaliwu nga xam ne taalibe bi ni ci moom moom bàyyam la roy saa bu nu ñëwee mooy toppatoo sëriñ bi mooy toppatoo gën sëriñ bi moo ñuy toppatoo kon lool yi mooy kaddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amiin amiin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 loori dandoona suxtin inda sarsaara loo sanaayi wa ridwaanin bilaa sifatin musxaad lii min bani daymaana ansaara lilaayi kulli adaa baari makrumatal قتلت الله وفي هيا ماما الزارة إن الذين إلى سرسارة قد خسدوا زيارة فارقوا دارين أمسارة إن الذين إلى سرسارة قد خسدوا زيارة فارقوا دارين أمسارة ووسيلتنا إليك محمدك الجميل منخ نبي المنتخى زاد إلى بيت الإله ناس وعب الإله